les deux frères Tarkalla macha allah Omaro Sidi Diop jàmm dellu na ñuy waajal Zénith bi le 29 incha allah rabbi non non damaa bëgg a ruube mais ma. dialogue na de. dialogue am na de. ah réew mi dialogue la sëgam Macky Sall ak Sonko ñoo dialogue ñëppay dialogue Cheikh Omaro dialogue am na dialogue na ah. <laughs> bàyyi leen ma ma ruube rek eh, na. l'international. all the way from NYC mais doom nday gars yi bëgg nañ jaajëf doom yaay mais bëgg naa la danga waat jaajëf waay lépp na ah. non daa mel ni dialogue am na de Sidi Diop ak Omaro dialogue am na la gannaaw dialogue am de doom nday <laughs> ah, ah waaw ça c'est des frères exclusivité sur le snap de Sankara Mbaye ngeen waaja ci le 29 juin la de incha rabbi Omaro Sidi Diop am na am na dialogue gannaaw ay jàmm ah damaa bëgg a ruuga damaa bëgg a yëngal dafa ma bëgg a jaxase ay nit gannaaw ay jàmm ay eh, Yves ay eh, Yves ah waaw eh, ay jàmm le 29 juin bi lañuy ñuy waaj incha allah rabbi mais kéej mais nice na kenn du day lépp nice na le le bi am na Omaro ak kii am na. Omaro dialogue bi am na. <laughs> xam ngeen ne ñun bu ñuy dem dialogue daf fay am. dialogue am na de jàmm dellu si na.